Seydi Alaaji Aliou Maamu Baay Mbay Ñas Alaaji Mama Zeynab Chafiyu ak Cheikh Ahmad Tijaani moo gi nekk fii moom it al imaam it fii lañ ko def ci alignement bi macha allah daal taaru na dëppoon sagar ñëpp la tiitaru ñëpp la Masya Allah. Ini ndax waxoon na bu ma tëddee ci suuf téeméeri at ngeen may tàmbalee xam moom nag mu ngi commencé am ay feeñuwaay macha allah am na yàlla dolli mu ngi sant yàlla bu baax ci lii yàlla na yàlla na dolli